waaw ndaje mi mooy dañoo am loo xam ne ñoo ko bokk moom ko doon ko sàmm ba jamono ji ñu gis ku ne di si wax te tey ñooñu kenn wax loowu leen ñun ñi moom doon ko sàmm 1972 ba tey 2020 yaakaar naa ñun ñoo ko doon sàmm war ko moom war ko suñu bopp kon yaakaar naa buy wax di am ñun ñoo war a wax kenn war ta wax mooy bande filao yi nga xamante ñoo ko doon sàmm 1972 ba léegi amoo yi nga gis ñu ñun ñoo leen xajal yàlla dogal ñu koy sàmm ba heure bi ba ñu dem ba nga xamante ku nekk soxla na ko teg si bëtam bëgg ko jël si ñun loolu lañ jàpp ne jaadawut yàlla wut maanaam dañoo bëgg président wax ak ñun wax ak suñu autorité yi nekk fii ñu jël lii nekk ko loxo ko suñu loxo ñu ko loolu bëgg nañ leen may nañ leen ndax ndax nit bu fi dëkkee 1972 ba tey nga dégg ñu la dagal nañ dip euh, magistrat yi dagal nañ waa impôt domaine dëkkandoo mënut a ñàkk ñoo yaatal nañ leen nañ ñëw ak jàmm ak salaam mais ñun ñu fi def di ay di ay ndaw yori jaba yori doom location cher yaakaar naa ñun suñu président moo doon wax ne waaw président moo doon wax ne waaw bëgg na ok président moo waxoon ne day tabax logement social tey wax dëgg yàlla bu dee loolu la bëgg askan bi bëgg lu leen jëriñ yaakaar naa li am na fii war nañoo mën a jël tabaxal ñu ko ñu dëkk ñu loolu ñu bëgg rek ñun ñu xeexuñu ñu dara dañoo bëgg lii ñu bëgg nii mu defal ñu ko jox ñu ko loolu lañ bëgg rek